à longueur de journée mais mën na bëri ci entreprise ci média bi bu dee rajo la ou télévision surtout télévision et pourtant dinañu jàpp ni am na difficulté mais bu weesoo loolu li ñuy xaar ci peut-être manager ou gestionnaire mu rationaliser li nga xam ne mooy ay mooy production ak li nga xam ne mooy euh, richesse dañu mënul adapter yooyu wala li ñuy mën a xaar ci gestionnaire pour mu adapter li nga xam ne mooy ay richesse am ak moyens yi nga xam ne moom la koy produire bu fekkee ni publicité bi nga xam ne moom la média di dundee matu ko plutôt ko peut-être ñu mën a dundu parce que li ñu fi proposé mën na doon méthode su perfusion ci presse bi te bu boobaa aussi am na ñeneen ñoo xam ne mën nañ ci xalaat rentabilité kese encore une fois Mamadou ibre kan même si évidemment administration mën na xam mais xëy na laxisme bi fi nekk tey mën na fi nekk ëllëg aussi ba du ñu def li nga xam ne ni moom moo war ba ki nga xam ne waru cee dugg dugg ci parce que tey am nay facilité économique est-ce que yooyu mën na nekk piste. waaw je pense que loolu mën na nekk ay piste de solution je pense que du ak CDEPS ak ñi ŋànk presse bi yëpp chaque fois dañuy am le même souci di si waxtaan moom mooy nan la ñuy def pour que presse bi survivre laay wax. parce que ñun si loolu lañ toll fu mu nekk nii presse bi dafay survivre vivre parce que euh, Mamadou nee na su ñu tegee levier yi teg cadre bi mën na am dina rentable. est-ce que en tant que manager. Mhm. ça t'est déjà arrivé nga toog nga ne ah ok maa ngi am xaalis ci lii waaye comme samay dépense dafa bëri damay xool léegi nu may adapté sama recette ak samay samay dépense charge par exemple salaire ak leneen ak leneen. xam nga soo yoree <clears throat> en tant que manager ñaar ngay xool équilibré mooy recette égale dépense walla profit mm-hmm. mais entreprise de presse yi nga xamante ne ñi ngi fii ñi mën a toog au la main ne dañuy def profit bëriwul tey soo jëlee kaawu future Média laay wax bi nga xamante ne moom laa xam moom laay gérer mm-hmm. maa ngi fii depuis 2012 Futur Média mësta def profit dafa déficitaire. ci chiffre d'affaires bi muy def du dégager bénéfice. dafa déficitaire et c'est le lieu de remercier vraiment euh, les actionnaires notamment le président Youssou ak Pape Cheikh Amar parce que entreprise bu déficitaire pendant autant d'années commissaire aux comptes yi recommandations yi ñu lay jox mooy nga def restructuration. war sa sax nga tëj entreprise bi mais ñooñu ay sénégalais yu bëgg Sénégal lañ ñoom dañ ne non lii nañ ko def sax comme sociale na nit ñi di continuer di am lu ñu suturloo est-ce que dégg nga bu baax Abdoulaye li may wax 12 ans ma nekk ci kër gi GFM existe depuis 2003 ça veut dire que 21 ans la am mësul def profit te man lu may wax. ci ay këyit laa ko teg président kan wax na ko sànq dafa am lu ñu tuddee des états financiers certifiés samay état financier ñu ngi au niveau de l'administration fiscale amul lu mën a nëbbu je parle aussi sous le contrôle de monsieur kan mënuñu ma génneel benn état financier bu GFM boo xamante ne def naa profit je suis déficitaire mais les actionnaires on fait le pari de l'emploi ñoom dañ ne ututuñu xaalis nañu bàyyi nit ñi di liggéey di am lu ñu yóbbu seen njaboot yi donc gis nga société presse comme ni ko doyen waxee sànq bu ñu buggee mu stable laay wax c'est-à-dire mu équilibré mmh. il va falloir que d'abord nit ñi toog waxtaan apaiser climat bi nga xamante ne moo am entre politique yi ak média bi parce que xam nga c'est très facile de dire que tel ou telle presse est une presse partisane mais tey groupe Futur Média bi nga xamante ne moom laay gérer groupe bu équilibré la si loolu laa jàpp c'est le lieu de félicité ñi may liggéeyal yépp parce que fii ay nit yu digne ñoo fi nekk ay journalistes rompus à la tâche des gens compétents parce que GFM noonu lay doxee y les actionnaires mooy Youssou Ndour ak Cheikh Amar Youssou Ndour est le président du conseil d'administration Cheikh Amar est vice-président je suis le directeur général de GFM je fais de la gestion administrative et financière mais bu weesoo loolu dafa am la ligne éditoriale de GFM bi nga xamante ne ay kàngam ak ay kilifa lañ ko dénk télé bi rajo bi ak journal bi Abdoulaye c'est la première fois en douze ans que a xam les invités d'une émission et parce que dama ci bokk mm-hmm. et li may wax mun nga ko seede mosuma xam say invité xamuma suba jàkkaarloo thème bi xamuma l'observateur bi def tey sa réunion de rédaction l'après-midi lan la ñuy titrer suba ak si kan la ñu war a wax ak lan lañ nar a wax donc loolu mauvais procès la suñuy rédaction yi dañu autonome dañ jël ay nit wóolu leen bàyyi leen ñuy liggéey parce que des fois tam nit yi dañuy wax nii rek di wax ci presse bi mais dafa am loo xamante ne tamit réalité la les gens ils sont responsables dañ leen di bàyyi ñu liggéey en toute quiétude man j'ai mieux à faire dem ci réunion de rédaction ne bindal leen ma ci Mamadou Ibra Kane donc Youssou nduur jéggal dama koy jëllale xam nga loolu des fois moom mooy déteindre ci média yi loolu mooy tax ñu naan woy média bi dafa faral diw kañ ko def lii kaañu def lële te ñun jàpp naa ne GFM group bu équilibré la groupe bu démocrate la ndax tey fii la majorité des agents je le dis ñu ngi may seetaan surement ñenn ñi c'est des pro-Pastef mais amuñu si problème seen gëm-gëm la liberté d'expression la ils sont dans nos rédactions mes plus, plus proches collaborateurs sont des cadres de Pastef sont des sympathisants wala même des militants ils faut leur travail correctement tant que yàquñu liggéey bi wala influer wul ci liggéey bi ñun amuñu ci problème donc groupe bi c'est un groupe équilibré